bakk bi dox ci diggante ñaari yaar ak Zal Konaté ñaari yaar moo jokkas xoolal woon ginnaaw ndaysaan ñaari yaar xoolal woon ginnaaw Zal Konaté moom nga jàkkaarloo Zal Konaté door yaar bi mooy premier combat ñaari yaar Zal Konaté yaar door na daaw doon jàpp daan wala déet bañ na ñaari yaaro ngay dóor ci ma ngay dóor ñaari yaaro ngay dóor sal kona ñaari yaar jël nañ ko daan nañ ko wala déet daan nañ ko kàllapi am na sal kona daan na ñaari ee eh, sal daan na sal kona daan na ñaari waaw ànd naa ci